la la mbokki Sénégal li ko war a képp kuy garmi wala ngay gararar nan ma jox nopp yu baax nekk ca ndar muy jëw affaire ay saag ak moo xam ay yére boo ñëwee ci ñun fekk ko fi ma ay saag yu yow xoolal saag bi nga bëgg ca loo am am ci saag yi ay saag yoo xam ne boo ko yoree mën tee dem xew ay saag yoo xam ne mën naa génn doxantu waaye ay saag yoo xam ne nee naa loo ci na ci ñun jaw affaire yémuñu foofu ñu indil leen ay xeetu valise yoo xam ne nee naa ko doon jaaxle ci fan lay ay valise yu rëy nii ma ay valise yu

maanaam ñun jaw frère ñoo la koy jaay ci ay njëg yu xéwale jaw li yóbbu foofu am naa itam ay dàll yoo xam ne aujii maa la wax lu ni mel ma ne ay dàll yoo ne ay dàll yoo xam ci ay maanaam yéen xale yu góor yi baax xale xale jigéen yi yéen daal ma ni sañse yéen a ko moom moo xam mag wala ndaw ñëw leen ci jaw frère mu sàjjal leen lu rëy jaw frère ndar ak li ko wër ku fi sol lu baax dina la xanaa jaw frère moo la ko jaay moo xam yëri tàngaay baa yëri si daay yéen ñi bëgg ay yëri yu gàtt wala yëri yu gudd maanaam ay lonkumaas ay xool loo ci sol mu jot la yaay borom kon beneen boutique baa ngi noonu ci ndar la nekk spécialisé ci ay yëri maanaam ay yëri dong jaay février waa kër maam Cheikh Issa Diène ñi ngi ci ndar ci marché ndar bi cantine numéro 196 bu ngeen ñëwee fekk fi ay ndaw yu laabir ay ndaw yu mën liggéey gérant Basirou Kane ak Moustapha Diaw mën ngeen a woo Basirou ci 76 298 84 66 wala 78 434 31 45 numéro Moustapha Diaw 76 374 84 39 76 374 84 39 wala 77 053 22 84 77 053 22 84 kon ñun la Diaw et frère waa kër maam Cheikh Issa Diène lépp lu waay bëgg ci xeet yi ñu la fi limal moo xam muy valise ba ay